sëriñ bi nag xam ngeen ne moom dafa feeñ jamono rek dal di jox boppam suñu borom tabaraka wa jël léppam dëgmal yàlla dëgmal goo xam ni gu dëggu ci moom te ànd ak positif bu kawe kawe kawe dund li ñuy wax al ubudiyya dund goo xam ni monsieur Fouta gis ku ko dunde noonu te ubudiya bu ma ko doon gàttal rek ci maanaam mu jege xel yi mooy léppam mu jox ko yàlla léppit mu di ko askante suñu borom tabaaraka ko taala fàtte boppam gisul boppam ci dara ci lenn bëgg yàlla itam bëgg goo xam ni dafa dem dayoo taxoon na guddi daana jot ni ko ku mel ne sëñ Mor Xari Sill di nett nett li nettalee nekkoon ku ko jege wax na ne benn bis mas naa gis sëriñ bi julli gee ni toogee nii bi mu sëlmalee tàllal ay loxoom ba fajar jot te jataay yooyu da ci daa déeyaaleeg boroomam ديال يوي امنا تي وخامني اي قصيده قصيده يي امنا تي وخامني تي مناجات يوي تي لاكو ديف تي ليمي بوكو ديغلو داغي غيس ني مانام كو جيخ تي بروموم ميغ ني كو خام دا فا فاتي بوم كو خام غيسو دار تي جامو يالا اك نيما كو واخي دوينا ريك تي خام لي جامو يالا سيرن بي موي مستا ديف لو لم انحو ما لم يفدي maanaam mësta def lenn lu amul njariñ waxuma la ak mooy yàlla te bu ma doon indi misaal ci nim doon wàqanteeg boromam ci biir munaajaat yooyu damay jël xasida gu mel ne matlabul maqarril asna nga xam ne da ca wax ne qaala ubaydullahi ahmadul mulim المتعزز بعزة الرحيم الحمد لله الذي قد ستر بفضله معايبي عن الورى حتى يظن أنني ذو ديني وعظم شأني كل حين مع أنني أقبح من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم مثلا wax وخمني لي ni day تي yàlla ci sutura si ko yàlla defal manam jàpp na ne mom ci jaam ñi gëna xébu ci la bok ba ay sik la fessé yàlla sutural ko nak ba nit ñi xamuñu lolu tax ñu ñëw diko magal diko di ko joxub cër waaye moom gisutoon ne yeyoo na sax cër bobu ci bir xasida gi da ngay gis muy wax ne ya sayyidi ana al faqir al fani wa innani al abd al haqir al jani ana al al la'im ba'is al almiskiinu أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال كو خم sëñ Tuubaa xam ne sori na wax ji mu wax ni masalan li mu wax ne bu tàyyeel bu lot bu dëkk ci tooñ ak def luñ koy yedde barik lekk barik naan bari nelaw kon wax waxin wi mu wax nii da ciy dégg ne ubodiya bu kawe la su la doon la doon dund ak boromam xam ngeen ne ubodiya bu ñu ko waxee muy ak njaam dund ko ak wàcce sa bopp ak toroxal ko sa sa diggante sa borom loolu mooy li gën a kawe ci lislaam gis nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba ko yàlla raña di eh, rañaane muy dem ci kaw maanaam asamaan ya dafa wax ne subhana asra bi abdihi mana batu abd muy ab jaamam la abdu abdullahi ci alxuraan gis nga gaa yu baax yépp garaat bi leen bi gën a mag ci leen suñu borom di ibadana Ibrahim wa ishaq wadkur abdana daawud wadkur abdana ayub maanaam li ma bëgg a misaal foofu mooy sunu borom ko wa taala day koo xam ni dara da ko tënkut benn ñaareel ba itam li ngay jëflanteeg moom jëriñu ko dara julli yi ngay def ak koor yi loolu amulu ko benn lenn lu ko jëriñu ko dara woyofal gi nga woyofal sa bopp nag fi kanamam nongul ko nguuram gi loo lii lay fayee loo gën a toroxlu fi kanam mu gën laa jox xéewal yi muy joxe innama sadaqaatu lil fuqaraay wal masaakin gis nga jullit ñi ca badar suñ borom dafa wax ne wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antumu adilla badar ñetti téeméer lañ woon ñoom jullit ñi yéefar di junni ak lu topp te néew gi néew doole ak toroxlu gi ñu toroxlu ci kanam suñu borom tax na suñu boroom jox leen ndam ca xeex boobee gis nga xunayn wa yow ma yawma xunaynin ida ajabatkum kasratukum fa lam tuxni ankum shay'an wa daaqat aleykum lardu bi ma raxubat maanaam la ñu bañ baree ca bisu xunayn mat fukki junne ñaar suñu borom da leen xañ ndam la ngir ay sabab mooy yëg gi ñu yëg seen seen bopp kon foofu ngay xame sëriñ bi ni meloon ci digganteem ak boroomam foofu ngay déggee li ko suñu boroom jox ci ay may yoo xam ni amut ab yamuwaay suñu boroom ci boppam nag moo ko joxoñ sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy li wax ne dama jub wuti sunu borom tabaaraka wa taala moom sunu borom joxoñ ma sayyidina Muhammad ne moom mooy bunt bi nee ma daat cay nekk rek jàpp ko te yéemalewuma kook dara Sëriñ Tuuba bokk na ci li gën a yéemu ci mbiram mooy ni mu bëggee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam